pour ci wolof wax ni am nañu euh, téeméer ak euh, juróom-benn fukk ak ñaar cas yoo xam ne positif nañ Sénégal ci loolu ñaar fukk ak juróom-ñetti wér nañu donc fi mu nekk nii suñu l'hôpital yi am nañu téeméer ak euh, ñett fanweer ak ñeent malade yu fa nekk ñooñu am nañ ci ñaar yoo xam ne nag seen seen situation xaw nañu jaaxal tuuti bu xaw a métti tuuti dañu nekk sobotage donc ñaar ñooñu am na koo xam ne sax dañ koy may pour mu noyyi te loolu waxoon nañ ko plus ñuy am ñuy gën a am ay cas yu bari plus ñuy am euh, possibilité am ñoo xam dinañ garaaw te ñooñu souvent ay mag la ñu nekk ba am yeneen feebar yoo xam ne moo nekk si seen yaram. te bu ñu xoolee aussi ci wàll bi ñi euh, ñi jóge bitim réew ñoo ak ñi nga xam ne la ñuy wàll ñoo gën a bari ñooñu presque buñ ñu jëlee euh, téeméer. Euh, ñeent fukki ak juróom yëpp ñoom ñoo koy indi donc euh, loo xam ne war nañ ci bàyyi xel te xalaat nañu ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci tëj frontière bi dina mën a dimbali fi ak euh, à partir du 4 avril ñu gis naka la feebar bi di jëm parce que fi mu nekk nii dinañ am toujours ñoo xam ne dinañu jógee bitim réew ñu nekk ci dëkk bi di def feebar bi donc bu ñu demee ba nga xam ne booru 4 avril. normalement waratuñu am ñoo xam ne jóge nañ bitim réew dugg si dëkk bi pour indi feebar bi maintenant bi des nag mooy ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi eh, am feebar bi ñu def la telle sorte que ñu am keneen ku ñu wàll ci gox yi nga xam ne ñoo am feebar bi juróom benn la donc dakaar la Diourbel Thiès Saint-Louis Ziguinchor ak Fatick ñooñu dëkk yooyu bu nekk am na benn malade boo xam ne am nañ ko bésu bërëbu fajukaay yi juróom ñaar la juróom ñaar la am na ñeent yu nekk Dakar donc hôpital fan bi nga xamné mo hôpital euh, Dalal jam, ak hôpital d'enfants bu Diamniadio bi amna ñu benen structure bu réanimation sauvetage bi bi nga xamné mi ngi nek hôpital fan si chirurgie cardiaque boobu léegi ci la bok ci région yi ñeent ñet ñu am moy Touba euh, Ziguinchor légui depuis démb bu Saint-Louis ibekuna parce que Ndar amna ñu malade bo xamné def nañ ko fa aussi yenen. Euh, place lal yoo xam ne ci ay hôpital yoo xam ne pare nañu muy hôpital principal muy hôpital Choum benn hôpital euh, privé la boo xam ne mi ngi ci hôpital Fann ñoom dañu joxe seen lal pour ministère de la santé mun fa teg maladie am nañu aussi benn clinique boo xam ne suñu benn naataango docteur moo ko joxe pour ñu mun fa jël aussi maladie donc am nañu ay lal yoo xam ne ñu ngi koy préparé parce que dañuy xalaat ni aussi dinañu amaat ay malades yoo xam ne dinañ ñëw ba nga xam ne bu ñëwee dina am fu ñu leen di teg. ci wàllu euh, laboratoire yi boobaak léegi am na junni ak euh, ñeen mille quatre cent quarante euh, et la je mille quatre cent quarante et un yoo xam ne def nañ ko test laboratoire ñi nga xam ne biñ ko defee si lañu ñu génnee téeméeri ak juróom-benn fukk ak ñaar yi nga xam ne malade nañu li ñu mën a wax rek mooy ci wàllu feebar bi bu ñu vraiment buñu am xel ñaar feebar bi fi mu nekk nii mi ngi commencé jóg mais ba léegi du ñu jaaxal ñun jaaxal ñu parce que xam nañu feebar bi dafa war a jug fi mu nekk nii comme li ma wax am na xam ne ñi ngi ci jóge nañ bitim réew dugg nañ ci réew mi ñi ngi am feebar bi ñi ngi am ñeneen ñu ñuy wàll ñooñu aussi am na ñeneen ñu te pour ñu xam feebar bi naka lay jëm il ñu bàyyi ba dinañ amaat ci semaine parce que semaine bi dina fekk ñëpp ñi nga xam ne tukkiwoon nañ jugoon bitim réew dugg ci dëkk bi dina fekk ñoom ñu génn si seen juróom fukki fan ak ñeent feebar bi donc Boba, dinañu mëna xam légui ñun suñu fièvre bi naka lay continuer parce que Boba day nekk juste Sénégal ñi nekk Sénégal am fièvre bi té kon bobu xex bi moy ñu baña a euh, wàllante bi entre ñun ñi dëkk ci dëkk bi mu mu mu law donc loolu dafa nekk lo xamné ne nit yi war respecter mesures ñu joxé yépp ci walu chat bi ci walu baña a bi ba nga xamné dinañu mëna xex xefar ba du ba du yok maa ngi leen gërëm di leen sant